jël gi ñu jël lu ëpp ñetti téeméeri hectare joxe ko ci lotissement bi nga xam ne moom lañu nar a dagg ci dëkk bii di silaan ak Mbari dun ko bàyyi mu jàll lañu wax Mbay Fall di wax ci seen tur dagg suñu suuf def ko ay lotissement jox ko ñeneen te ñun béykat yi suuf si soof suuf soosu la ñu yaakaar ginnaaw ba nga xamante ne état dafa amoon lu mu dogaloon ci ginnaaw muy autoroute à péage bi suuf si ñu amoon autoroute boobu jël ko akas tuut li ñu dese ci dund di ci suturawut maire nag fas yéene ngoogom ak ni mu yaatoo mu bay ngoogom ci ginnaaw suuf soosu nga xamante ne moom la askan wi dese mu ñëw na da koy dagg di ko jox ñeneen askan wi di ci xeex depuis ñaari at. askan wi taxaw temm ne maire ngoogom bii da leen bëgg a jaay doole te duñ ko nangu benn. barki démb maire ci wàllu boppam la mu waxoon mu ngi ci. nee na doomu aadama buy yeewoo ci Ngogom mënu koo tee dagg suuf si. looloo taxit mu yebal ay ay ay équipe mu ñëw dagg si suuf si. bañ ko yegee dem nañ ci moom. boo arme faaf na faa génn. kon jéye waroon na am. loolu nag bi mu amee ñu doon xaar su préfet bi nga xamante ne moo interdire marche bii. génn taxaw ne ginnaaw jéye dafa waroon am. man kilifa gi interdire naa ne ñëpp taxaw ba ñu woote waxtaan loolu ñun ñu dugal suñu marche mu ne daf koy interdire te xamuñu li tax mu interdire xopp nañ leen tiital nañ leen ci lu ne wante nee nañ dund bàyyi benn yoon lotissement bi jàll seen responsabilité la ñun waa population Ngogom ñu ko seetaan tey duñu ko seetaan suba on ne peut pas nag nous priver de nos droits. ñoom nag ñu ngi woo président Diomaye Faye mu def li nga xamante ni mooy gëstu bu xóot ci suuf si ñu joxe. dëggal kilifa yi nga xamante ne mu ñooy doog a jël nguur gi nga ne jooy nañu ci problème mu comme in ini ñaxtu bi nga xam ne dañ koo tere détachement gendarmerie moo ko tas moyante nag nemmeeku woon nañ fa nit ñu bari ñoo xam ne nii day danoo dogu ne seen suuf duñ ko bàyyee kenn bombe yi RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf ñuy yëngu ci mbayum dar mbayum dër te kon nekkee ci Landeng ak Kolobaan Guy Mouride ñoom itam euh, toogaanu ñaxtu la ñu xëyee ni ki tey jii ndax ne seen euh, suuf la ay promoteur immobilier daal di euh, aakimoo loole nag lañ doon naqarlu ki sàlloo seen kàddu Pape Konaté lay wuyoo ñu teewlu ko Abdou Diouf Diagne. par benn lotissement boo xam ne ni moom la ki nga xam ne ni kilifa bi ñuy jiite moom la autorisé ba ñu gis fi benn station essence bu fi jib coow la la yëgoon nañ ko si ay maraîchers yi ñu jàppoon mais nañu xam ne ni ñoom amuñu affaire ak maraîchers yi population yi aujourd'hui ñoom ñooy défendre ni ñoo ñuy lot leen moo fi nekk di tax ñun ñuy noyyi nit ñi ñu ngi ci ginnaaw maanaam jaaykati suuf yi def seen i mbil ak seen i dil ba seddoo benn parti boo xam ne ni bu ñu bàyyee ñun fi mu jëm mooy leen nag mooy disparaître te loolu la ñuy bañ plus de deux mille et quelques emplois que ça soit direct wala indirect maanaam ñooñu la ñu bëgg ñu dem te ñooñu demuñu ci gaal yi defuñu naka su dul noonu te liggéey amul ci dëkk bi léegi nag ay nit ñoo xam ni ñàkkuñu dara jël loolu a seddoo ñu waxee maanaam ay huit milliards wala milliards buñ ko xaymawee ci ñoom li ñu bëgg a séddoo parce que fii zone bu am valeur la ñu ne leen non ñun duñ ko nangu donc population bi tey ñoo jug nekkat ñun d'accorduñu Lendeng di disparaître ñuy demander le euh, maire mi nga xam ne ni moom moo signé autorisation demandé wuñ ko sax dañ koy exiger mu retirer autorisation boobu mu sursoir ko bu dindee ba pare dañu bëgg a la décision du sous-préfet bi fi nekkoon moom mi nga xam ne ni président dafa géejewaay itam coowul suuf foofe ca aslem euh, Paris euh, kuréel gi nga xam si nag ñoo taxaw temm ne ab euh, commerçant bu mag moo fa ñëw ngir jaay leen doole mbir mi nag yóbbu nañ ko ca kanamu tribunal te itam nag nee nañu duñ ci dellu gannaaw lu dul ne waa ji da leen a bàyyeeg seen barab boobee ki nga xam si moo di Medoune Diop. moo ci wax ci micro wu Salamata Ousmane Diallo. bon li ñu ko mën a expliquer daal situation boo xam ne bon am nañ habitude di ko am parce que bon yàlla dogal na waa ji yi nga xam ne mooy xëccoo ñu fii moom mooy septième personne bi koy xëccoo. bon koñ bi dafa am lu mat sept espace espace yooyu mooy affecté ñi nga xam ne ay bande ay la bon yàlla dogal na kii depuis 2018 xaw ma fu mu dem ba lijjanti ay këyitam ñëw ne espace bi moo ko moom te espace bi espace public la kon situation noonu la depuis lors la tudd il est né à Louga bon c'est un commerçant dëkk Dalifort mais personnellement combat la boo xam day xeex te mosuñu ko gis plus de huit ans sept ans xeex ak ñoo xam ne yaa moom te mosoo présenté wu ñëw ne yaa moom tout le temps ngay laaxatu si ginnaaw ay ay ay yooyu te doo mos a présenté wu nit ñi ñuy def bu suuf xam na moom ñi ñi ko fi jiitu jaar nañ fi am na koo xam ne depuis 82 la lijjanti bàyyi dañ ko aawaloon pour mu def ko daara alxuraan ndeke lijjantee suuf bu am kayit yàlla dogal na en 2022 dëgër pin nañ ko jël espace bi am na beneen site bu nekk fële si biir cité bi am na keneen bu si montoon ba si bàyyi mais attaqué nañ ko ba récupéré moom mooy septième personne bi nga xam ne moo si ñu koy wax encore une fois na reculer li ñu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 askan wa yeewoo ca Sotrac Sud xaar yàlla ak alaaji paate ca Kër Masar nee ñu saa suñu yegsee ci waxtu yi dootuñu nelaw ba yàndoor ndax jafe-jafe yi ni jànkonteel ci nawet bi tax tey jii ñu dajaloo woon doon yëglu ci kilifa yu bees yi Aminata Ba. Sotrac face alaaji paate wala sa xaar yàlla yi li ci nekk ci commune bu Kër Masar Sud ba fii nag jotuñu ci jumtuwaay yi nga xamante ni ñooy yóbbu ndoxu taw mi lii nag daal di nekk njaaxare askan wi te ay weer rek desandi ngir nawet bi daal di door bokk ci association Sotrac développement de Kër Massar. ñu nekk ci tiitaange parce que xam nañ ni ndox du bàyyi yoonam fi mu nekk nii ñu ngi ci noor mais bu ñu déplacé woon ñëw dañ la war bërëb yoo xam ni ndox yaa nga fa nekk taaju waxumala ak nawet bu dikkee léegi kanalisation dong moom moo mën a jëlee ndox mi foofu quartier bu mel ne comme Sotrac sud ba léegi gis nañu ci plan d'action bi jëluñu ko en charge te ay jafe-jafe yu metti la ñu nekkee yoo xam ne bu nawet bi dikkee su bëri dañu obligé tëj seen kër génn seen kër dem mu ñuy jàppale ñu balaa nawet bi dikk moo xam de ouvrage yooyu ñu jot ci wala saat ñu wut ay pompe route principale bu Sotrac bi daal di itam yàqu ndax mbënn mi nga xamante ni dañ koy nemmeeku ci bile yoon yi li at yu mujj ñu bokk ci association Sotrac développement bu ma Massar bëgg nag ñu daal di koy defaraat. bu am solo boo xam ne dina désengorger vraiment trafic bi fi nekk mais malheureusement à hauteur de Grand Médine foofu yëpp day fees dell ndox nawet ba nga xam ni oto du mën a jàll dara mën jàll mesure ba nga xam ne léegi yoon boobu dana tax circulation bi normal nit ñi mën a dem ak dikk bi bañ gàllankoor. ñi de dëkkee ci commune bu Kër Massar Sud di sàkku itam ci autorités locales yi ak gouvernementales yi ñu daal leen taxaw financièrement ngir ñu gën a mën a sóobu ci xeex mbënd mi ci seen gox Aminata Ba Kër Massar rajo Futurs Médias. jaajëf Aminata Ba commune bu Dodji moom ca département bu Linguère la nekkee foofe ñoom li leen yitteel moo di am ndox mu nu jëfandikoo moo mbayum dër ñoo ko soxla ba ci itam seenu ko jur loole nag mooy tax ñuy daal di yëglu ki nga xam si moo di Amath njaay moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko Baye Assane Diaw. dans la commune de Dodji mën naa la wax na la dëkk yu ci bari amuñu ndox li ko waral mooy que ne courant bi nga xam ne moo jugee côté Linguère dugg suñu commune amul doole bu mu mën a taalee machine yi forage yi lu mat juróom benn dëkk wala lu ko ëpp yoo xam ne mënuñu am ndox jëkkut jaaduwut commune de Dodji dañu respecté suñu tool yaa ngi yàqu ñi ji bëgg naan mënuñu naan loolu loolu jaaduwul am réew kenn mënu ci dund sans ndox parce que mënoo togg mënuloo naan mënuloo arrosé say tool say jur duñu naan loolu mënul nekk maa ngi lancé appel le président Ousmane Sonko parce tey réew mi problème bu fi am moom la wax Ousmane Sonko moo taxoon ñiy xeex di sonn di ñàkk suñu alal di ñàkk suñu doolee ndax jëmmam ak jëmmi projet bi kon su lii amee war nañ ci mën a taxaw nu mu gën a gaawee maa ngi leen di lancer appel ministre bi nga xam ne moo yor wàllu courant bi na lijjanti situation bi parce que mënuñu dund sans ndox li ko dalee kaaj yi ñaari xol-xol yi ba dooji dooji sax am na chance yu am benn groupe pour mën ci taqale am ndox ba poraam mënuñu am ndox ba wéelu bay mënuñu am ndox kon ñu ngi leen di tàllal loxo ci nu mu gën a gaawee ñii lijjanti ñu situation boobu ba ñu mën a dellu ci tool yi am ndox bëgg jur gi ñëpp nekk ci jàmm pour RFM mooy bi jaamu seen soxla. ñu wax ci liggéeykat yi collectivité territoriale yi ñoom itam euh, seen grève bi ñu suuboon euh, daanaka léegi mu jege at. Euh, dellooguñu ci ginnaaw ayubés bi ñuy dugg suba ci altine ji ba ajjuma nee nañ dañuy bank seen i yoxo ñoom intersyndical bi nag nee nañu ministre bu bees bi li mu leen waxoon mu di janloo daje kon ak ilimaani jëwriñ yi euh, defu ko te itam nag nee na nangu na li ni ñaxtu yoon la waaye kon amagu ci pexe loolu nag moo tax ñu ni ñoom itam dañuy wéyal seen xeex Ndiaga Diop moom mooy seen porte parole euh, ñu teewlu ko kibrahima Diamé. ministre bi ba mu xamee nga xam ne moom la liggéeykatu collectivité territoriale territoriale di xeex depuis boobu ba léegi euh, xeex bu bu jaadu la maanaam ay droit la légitimité euh, euh, revendication bi léegi nag moom affirmé woon na volonté maanaam waxoon na ne lu mu gën a gaawee n'est-ce pas gouvernement bi si ut saafara ci li nga xam ne dafa yàgg daanaka léegi mu mat ñaari at tigoon nañu sax premier ministre dinañu recevoir xam nga ci ci délai yu yu gàtt jusqu'à présent amuñu ci benn benn benn xibaar intersyndical nag ñu dégloo bu baax la base parce que woote woon nañu assemblée générale semaine dernière ñoom déglu nañ base bi base bi nag ñëpp wu nañu ah base bi nee na ñu nañu reconduire cent vingt heures de grève di ko renouveler semaine bu nekk donc ñu ngi natt grève bi bi nga xam ne ni mooy commencé altine le vingt neuf ba àjjuma 3 avril sur toute l'étendue du territoire maanaam ci ci Sénégal yépp Birahim Seck Forum Civil moom li muy sàkku moo di kon euh, rapport yëpp ñu daal leen di euh, publier fesal leen rawatina nag yu inspection général d'État comme ni ko OFNAC euh, defee moom coordonnateur bu Forum Civil nag nekk ca Richard ci lu aju nag ci lu gën a taxawal dooleel justice fiscale fiscale Birahim Seck ak Mamadou Diagne. bi ñu publier joxe information bi ne OFNAC publier na rapport yi tey jii am na yeneen publication bi ñu def moo di ne boo xoolee bi président Diomaye fay waxee ne corps de contrôle yi dem nañ gën publier rapport yi daanaka diir am na diir boo xam ne dox na ci diggante bi corps de contrôle yi defuñu ko. ci loolu nag ñu ne ñu jàpp nañu au niveau du forum civil parole présidentielle dafa nekk lu sacré te képp koo xam ne bëgg nga réew bi dox da nga ko war a jàppale ci mu préserver la sacralité parole présidentielle ba tax na tey jii ni forum civil ne corps de contrôle. ak IGE dañoo war a bokk ci ñi nga xam ne dañuy protéger dañuy sauvegarder la sacralité de la parole présidentielle ba tax na war nañoo publier rapport yi nga xam ne moom nañ yoreel Sénégal yi ndax publier rapport yi mooy respecter loi te ñoom dañoo respecter loi comme tout un Sénégalais. Kader Lo xibaaru tiis bu ñu fi dab léegi di kon euh, ki fi nekkoon euh, directeur général AGEROUTE euh, di général Ibrahima Ndiaye nga xam si nag dafa daal di génn àdduna. ñu koy euh, ñaanal kon yàlla yërëm ko jégal ko xare ko euh, àjjan. ñu doore ko ak football Ligue 1 bu Sénégal doon amal vingt-et-unième journée FC wéy di jiitu amaat ndam tey digganteem ak Sonacos bu Bawol daan ko benn bal ci dara match bi xewee kon ca stade Ngalandou Diouf ci teewaayu Soda Thiam. comme niñ ko nemmeeku woon ci juróom-ñaareelu bëccëg ba diggante ñaari équipe yi nga xamante ni dañ cee témboo woon te ji nag Teungueth football club daal dinay jël ñett poñu ndam yi bi nga xamante ni moom moo dugal benn but képp bi am ci jongante gi loolee naka leen di tàggat di ko ni amul defet ci terrain bi ñu xamoon ne équipe la boo xamante ni aussi dafay ñëw point ba nekk ñu téye bi bousculer leen mais bi ñu gisee ni aussi ñun ñoo moom bi donc ñu xam ne ñoom seen ay axe yi dañu xaw yéex ñu ne nañu joué autour de la défense je pense loolu moo tax ñoom nga xamante ni bi si mi bi mooy situation la boo xam xamuñ fexe ba téye surtout nag l'adversaire xaw ñu si dimbali tuuti parce bu Jurbel bi dafa gën a dëgëral taxawaayam ci ñaareelu pàcc jongante gi loolee nag kaleen di tàggat di si det sa rafetlu ko lool deuxième mi bi bi ko entamé aussi wàññeeku nañu mais ñoom di leen féliciter ah seen belle bi parce que l'avantage bi ñoom contrairement ñun ñun parce que soo xoolee fukki jour ak ñeent daaw saison bi nekkuñu fi woon ñoo dem ren ren ñu indi équipe bees di ko defar mu teel a nekk nag en beneen bi on est un peu handicapé ne kon Tëngéej football club day daal di des ci bopp classement bi rawee juróom-ñaari poñ ñaari équipe yu topp ci moom moo di jaraaf ak Géejawaay football club beneen jogante ca stade Ngalandou Diouf nag niki alarba gi lay doon digganteem ak AS Bambey loolee ñeel la 16e de finale coupe du Sénégal. Sode Thiam ca stade Alassane Djigo AS Pikine moom euh, dañ ko daan jaraaf moo ko fekki daan ko benn bal ci dara Abdoulaye Waly moo dugal benn bu jaraaf ci match boobu di match boo xamante ni euh, vert et blanc yu Medina euh, bëggoon nañ ko gagné lool suñu sukkandikoo seen entraîneur di Malick Daf ñu déglu ko ci micro Mansour Ba. waaw di sant yàlla rek sant yàlla. li ñu bëggoon dañuy ñëw préparer équipe yàlla defal ñu ko mooy ñëw nañu gagné. yombul ndax amoon nañu adversaire je pense que on a marqué logiquement parce que ci entame match bi ñu def moo gën quand même bu Pikine et je pense que le but a été marqué sur une belle combinaison d'attaque après comme on dit il y a un moment où l'équipe a lâché on a reculé

daal di àndal euh, ginnaaw am déception parce que vraiment match bi dañ ko doon gagné pour suñu public réconcilié ak ñoom mais dafa am benn fait de jeu ñu manqué attention jël but bii bu ñu jël tey moo tax xale yi joué ak pression parce que dañu bëggoon joué ragal football dooy football ragal c'est pas bon daf lay inhiber donc tey looloo doon la demee ñun en deuxième xool nañ jeu bi réajusté andiwaat milieu terrain bi densifié ko yokk attaquant mais Jaraaf a bien défendu tey buy bu mu am moo après ñun pousse nañu pousse nañu mais dañu nangu ne tey jour de fête la sportivement dañ koy accepté analyser match bi projet wu pour match coupe bi di ñëw euh, gannaaw suba incha allah. Joseph Senghor kon ginnaaw défaite boobu ñu am seen digganteeg euh, Jaraaf ba tey ci xëccu tiitre bi Guédiawaye football club euh, ñibbisi ak poñ fële ca Saint-Louis 0-0 lañ def ak Linguère. Euh, junko yi kon ñoom ba tey nee nañu euh, titre bi mu ngi seen kanam moom la ñuy uti euh, suñu sukkandikoo seen entraîneur di Ansu Jaaju moom it daal di ñaawlu anam bi terrain bu fale stade Mawade Wade ni mu yàqoo kon rafetu ko benn yoon ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop. tey lii li ci gën a mooy état terrain bi boo seetee terrain bi da ngay bëgg a contrôler nga dëggaat ci bal bi ngay conduite nga trébuché ci bal bi nga bëgg a passe bal bi mooy en plus vent bi tamit c'est ci li mu toll ci Sénégal ci football waroon na am ñaar ba ñetti terrain yi nga xam ne war nañ fa mën a jouer tranquillement je pense que état terrain bi sa arrangé wu Linguère parce que boo seetee Linguère lu mu fi dugal ci biir bëriwul te ba tey ñun dañuy jouer à fond comme on a assuré le maintien léegi nag titre bi dañuy dem jouer à fond donc fu ñu dem dañuy attaquer pour gagner pour avoir le maximum de points possible. Guédiawaye di wuti titre bi Linguère moom di xeex ngir des ci Ligue 1 Abdou Majib Diop moo di tàggat déglu ko ba tey ci micro Ousseynou Diop. waaw match bi du ma def lu dul jaajëfal ñaar équipe yi parce que jongante nañ ko mu gën a rafete parce que xamoon nañ du yomb géejawaay Linguère du yomb d'abord mais Guédiawaye encore di jouer titre nekk deuxième ñun aussi ñuy sauver sunu place parce que rëccagul ku nekk xam nga ni tey journée bi balaa ñu koy jouer tënkee rek moo maintenir woon si des ñëpp dañuy daaxante ñun aussi ñaakaar nañu ñaari poñ parce que suñu dëkk dañu war di gagner war di gagner mais boo gagner woon aussi nga jël benn point duñ si tof yi ba bu ñuy wàññi dana am solo lool. sa stade Massène bu Fatick jamono euh, moom jàmbaar moo ko fekki daan ko ñeenti bal ci euh, ñett stade Caroline fay euh, stade Mbour moom moo kon daan équipe bu waa gore benn bal ci dara Mame Gueye moo dugal seen but Euh, ca Stade Lat Dior bu Thiès euh, génération foot ak Casa Sport 1-1 def euh, Serigne Salif fay moo njëkk dugal pour équipe bu génération foot Raymond Diamandour daal di égaliser pour Ziguinchor waaye moom sax boobu mooy biom bu njëkk ci saison bi. ca stade municipal bu Ngor fa lañ koy jeexalee US Wakam moom euh, ñi di dakaar Sacré Cœur ñoo leen fekki daan leen benn bal ci euh, dara classement bi ginnaaw vingt unième journée bi euh, Tëngëj FC moo wéy di jiitu am 43 points Jaraaf deuxième 36 points tolloo ak Géejawaay mi am tamit 36 points Pikine quatrième am 30 points ci suufu tableau bi Jamono Fatick 19 points Jambaar bu Sali am 17 Ligue 2 sénégalaise ñaari match moo amoon tey ngir kon tëj vingt unième journée bi xibaar bi mooy Oslo léegi moom mooy leader bu bees bi ginnaaw bi mu demee ca euh, Louga daan Njàmbur ñaari bal ci euh, benn ci FC daan Kër Madior benn bal ci dara classement bi kon nii la tëddee euh, ginnaaw vingt unième journée bi Oslo moo jiitu am 37 points AS Douanes deuxième wali daan Walidane FC troisième am 35 points. HLM bu Dakar am 34 euh, points mooy quatrième euh, jàppale ni kon euh, ren ñeenti équipe mooy yéeg ndax kon déwén kon incha allah Ligue bi dañ ci yokkaat ñaari équipe ba tax na kon ñeenti premier yi ci Ligue 2 bi ñooy yéeg ci championnat Ligue 1 déwén jàppale ni kon relégable yi Demba Diop FC la am 16 points ak Kër Madior mi am tamit 16 points. ca France lañ jëm Paris Saint-Germain moom moo gagné kon euh, championnat bu euh, Ligue 1 bi mooy ñetteel yoon bu tegaloo di fukkeelu titre ak ñaar bu équipe bu euh, Paris ñoom nag dañoo nekk champion jamono ji nga xamante ni ñetti bëccëg moo des laata championnat bi di jeex li ko waral mooy tey AS Monaco bu Crépin Diatta mi nekkoon titulaire dafa ñàkk digganteem ak Olympique Lyonnais ñetti bal ci ñaar bi mooy ñaareelu trophée saison bi pour Paris Saint-Germain mi gagné woon kon ci ndorteelu saison bi trophée des champions parisien yi ñoom ñu ngi daw ci ginnaaw tamit Coupe de France ndax dañuy jongante euh, final bi seen digganteek Olympique Lyonnais jogante tamit euh, lii di demi-finale Ligue des Champions mercredi seen digganteeg euh, Borussia Dortmund euh, ci xeex kon ngir jéem a xool nooy ñuy jëlee ay places européennes ñii di Olympique de Marseille moom tey am na ndam bu am solo digganteem ak lance bu Nampalis Mendy ñaari bal ci benn bi gabonais bi di Aubameyang moo ko dugal ak pap Gueye mi nekkoon titulaire tey ci match boobule beneen doomu senegal di Iliman Ndiaye moom it nekkoon titulaire Ismaila Sarr moo ko remplacé Ismaila Sarr ñëwaat kon. ginnaaw euh, bi mu soree terrain yi ndax gaañu gaañu Olympique de Marseille mooy septième euh, ñetti bëccëg moo des laata kon championnat France di euh, jeex. ca Angleterre foofu lu ñu ñu ngi xeex ba tey ngir kon xam kan mooy jël titre champion ngir wuutu Manchester City. ñetti bëccëg moo fa des tamit euh, leader bi di Arsenal tey dafa dem daan ñetti bal ci ñaar euh, Tottenham bu Pape Matar Sarr moom sax ci ñaareelu période bi la dugg Manchester City moom mooy euh, deuxième dem fële ca Nottingham daan leen ñaari bal ci dara ca défense su Nottingham Moussa Niakhaté nekkoon titulaire Citizen euh, yi ñoom kon benn poñ la leen Arsenal euh, rawee waaye am nañu match retard match bi ñu war a dabu euh, kon suspense bi di wéy ca Angleterre am tamit tuuti suspense suspense ca Espagne daanaka Real Madrid moom daanaka jël na trophée bi jege na lool jël trophée bi waaye ci yeneen championnat yi xam nañu champion yi ba pare donte jeexagul intermillan moo ko gagné ca Italie